man la sëñ Fallou Mbacké président mouvement Farlu président bi jiite gëm sa bopp fii ci Darou Mouhty di coordinateur daa ngi leen di ziare bu wér di bëggoon wax ci actualité boo xam ne fan yi dafa xew fii ci réew mi mu concerné euh, Fadou Diagne mi nga xam ne euh, mooy actuel maire fii ci dëkk bi te teg fi Madiop bi tey muy révélation yoo xam ne am na ku ko wax ku ñuy wax alfa Diallo muy révélation yu garaaw ci mbirum senakos ak mbirum faada li may njëkkee mooy faada moom day nit koo xam ne daanaka ak yéegam ñu fal ko ak ñu wàcce ko amul lu njëriñ dëkk bi ndax defe naa koo xam ne ministre de la santé fan lañ la ko li commencé 2009 ba 2012 yow amoo benn réalisation yoo xam def boo xam ne def nga ko ci dëkk bi lu dul dëkk bi poste de santé la am ba fi may wax ak yow nii nii nii nii am na ay machines yoo xam ne hôpital bu daal mooti da koo manqué nga xam ne boo fa ñëwee ngir faju dañ la yóbbu Touba wala dañ lay yóbbu Louga ngir nga mën a euh, def sa wér-gu-yaram am sa wér-gu-yaram ni nga ko bëggee kon faada moom buñ ko tuumaalee ci loo xam ne dañoo wax ne moom moo ko def moom ak rakam liñ bëgg mooy na leer loolu lañ bëgg na leer ndax waa ji li mu wax tamit nga xam ne mooy euh, benn mil kilo bu ne 1000 mil 1000 1000 1000 kilos bu ne. maanaam danañ ci am 15 millions francs CFA nga xam ne boo ko xoolee 1 million 900 1 milliard 950 mille francs loolu lu rëy rëy la loo xam ne Macky Sall ci boppam war naa épingle dossier bi yóbbu ko of nag ñu laaral ko lu ci war ñu def ko tey man li ma gën a jaaxal mooy man man def man mi nga xam ne dëkk naa ci dëkk bi yàgg fi di fi liggéeyee tey jàng fi juddoo fi yaroo fi samay maam sañ ci dëkk bi. man gisaguma nit koo xam ne Fada da koo jël Sonacos muy liggéey di fayeeku di dimbali ay waajuram man gisaguma ko li ñu bëgg daal mooy mbir yi na leer un milliard neuf cent cinquante millions yi ñuy wax moom ak rakkam nañ ko leeral ak rakkal ji ak yeneen ak yeneen di ci des nañ ko leeral Macky Sall dossier bii nii na ko yóbbu of nag ñu def ci audit bu fekkee moo ko def nañ ko wàcce nañ ko teg ay daan nañ ko tëj bu fekkee defu ko tamit nañ leeral na defu ko mu leer waaye li ma xam daal tam wóor ma mooy amul lu njëriñ dëkk bi amul lu njëriñ benn doomu Daaru Muxti élection ba élection lañ ko fi gis bu ñëwee di joxe ay 2000 di joxe ay 10 000 ba élection jàllee dutuñu ko gisaat lim ñu dikk gisuñu ci dara Daaru Muxti lëndëm na loolu ñëpp xam nañ ko bu timis xasee jot fu bare bari ci dëkk bi dootoo fa ñemee ñemee tey jaar Daaru Muxti manqué na sécurité ba waa Daaru Muxti ci boppam kër gu ne yaay fay weeru jot 3000 francs ngir ñu mën a cotiser ngir mën a jël ay garde yoo xam ne dañu dañu suñu sécurité beneen bi ci topp mooy Daaru Muxti gii nga xam ne Fall nekk na ministre 2009 ba 2012 maternité bu baax sax amu fi ba nga xam ne takku defar Daaru Muxti ñoom ñoo dajale ay millions yu bari ci njiitul suñu samat ak doomi Daaru Muxti ak taalibi boom Daaru Muxti ñu def fa am maternité boo xam ne ci la jigéen ñi di muccoo te ginnaaw loolu Fada nekk na 2009 ba 2012 ministre de la santé kon kooku defe naa képp ku ko yaakaar ci mu liggéeyal la kooku defe naa sa yaakaar day tas rek